nuyu na leen bu baax a baax mbokkentoona ci safo di seetaan Sunugal 24 le point de la rédaction di jotaay yi nga xam ne si dañ koy amal saa su nekk fii ci Sunugal di ci waxtaane lépp loo xam ne si nii actualité la rawatina les faits divers may am mbégte également di ci ànd ak euh, Moustapha mbay yéen aussi ngeen mën a participer via les commentaires di bàyyi Moustapha rek mu daal di nuyoo ñu soo a jàll ci waxtaan bi Moustapha noo def maa ngi fi Cheikh Mahfous maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñun si sunu point de la rédaction bi yàlla def ñu koy amal bés bu yàlla sàkk. mi ngi noonu euh, euh, mi nga xamante ni xew na fële ca commissariat euh, yi moom démb si guddi dafa daal di xaru ci boobile commissariat moom nag mi ngi wuyoo ci turu Abdou Faye Abdou Faye nag moom moo bokkoon ci ñett di booy ak ki nga ñoom ñoo nekkoon ay complice waaye moom Abdou euh, Abdou Faye moom i la ñàkk na bakkanam ci ak xaru goo xam ne si ni euh, li ci li ñu li jot ci ay ay xibaar que fële la ci fi nga xamante ni moom moo di commissariat central ginnaaw bu ñu waroon a wuy jiwaat euh, kii di ñoom ñeent ñooñu nga xamante ni moom moo di ñett mooy booy jinne ak ñetti complice am yooyu nga xamante ni Abdou Abdou Faye ci la ci la bokk Moustapha bu mel que ni du ne gulet ñu gis koo xam ne si nii tey dee na ci ci garde à vue fële ci ci ci commissariat yi waaye bii nag def ci dafa dafa yéeme ndax euh, commissariat lu toll ne commissariat central su fa nit mënee nekk ba xaru te kenn yëgu ko euh, dina indi ak jeexi jaaxa dina indi ay xel yu lënt lënt hmm. donc damay euh, dama lay bàyyi rek d'abord nga ñëw ci li nga xamante ni moom moo di info bi am ah, laata ñuy ñëw ci li nga xamante ni tey moom moo moo moo laxasu si mbir moomu mais naka nga jàngate tey loolu nga xamante ni xew na ci commissariat central bu Ndakaaru muy koo xam ne si ni dañ ko jàpp mettre ko en garde à mu xaru te kenn ne xaru na waaw damay jël ki nga xam ne mooy Seydi Gassama rek au mot c'est curieux. c' est curieux parce que mhm. xam nañ commissariat ni mu ni mu bindoo boo fa demee di ay kayit mbaa nga lijjanti ay kayit da ngay gis sax ñuy denc boo moytu da am na commissariat da nga jàkkaarloo ñoom nii foofu buñ ne nit dafa xaru lu yéeme lay doon mhm. moo tax pour man yaakaar naa nag li war li njëkk a def mooy dinañ ubbi enquête ñu xam mbir mi ndax xaru la parce que c' est la première fois ñu koy gis mhm. Eliman Touré c'

raison te kenn mënu la yëg du donte eh, xam nañ ni moom kese nekk fa moom kese nekk foon et dañ leen di surveiller commissariat dañ leen di surveiller ñi ah, ah, ñëw ñu ne la commissariat wàcc nañ 19 heures wala wàcc nañ midi wala wàcc nañ 14 heures du tëj donc dañ leen di surveiller loolu moo tax ma ne léegi c'est parce que ñoo ko ñoo xam ne dañ leen di surveiller H24 nga jàpp leen arrêté leen fa parce que dañuy nëggandiku mhm. en attendant ñu dem gis ju procureur mu décider si ñoom soit da leen di dóor ñu dem mandat rëbës wala ñu wut mhm. la nga ñibbi mettre la mhm. sous contrôle judiciaire wala ñu bàyyi la nga ñibbi waaw xam nga loolu tey su fekkente ne commissariat yi loolu lañ fa dégg commissariat yooyu tey ji waroon na di teel Euh, kii bi nu ñu waxee procureur bi parce que retour de parquet yi loolu la dénk dénkaane procureur kese la dañ lay dénk procureur bi waaw téelu ma ko buñ demee boo gisul procureur ñu delloowaat ko dénkaatal ma ko procureur mu doon benn amaat na benn retour de parquet amaat na benn retour de parquet ba finalement bi nga gisee procureur mu inculpé la xool fi muy jaar ak yow wala mu am leneen mm. ab bërëb da nga fay dénkaane sa doom ñu mm. leen ci biir police bi da nga fay gis ñi exerce yenn violence yoo xamante ne yaakaar naa du war nañu gën a mën a xoolaat seen ay comportement xoolaat seen ay habitude parce que am na yoo xamante ne pour man dafa faatu faatuwul dafa ray boppam wala dañ koo ray mm. enquête bi dina ci wane lu leer mais dañ mm. xam ne après du mujj fenn loolu enquête euh, ko ubbi mais doo xam mm-hmm. ndax kiñ kiñ ki déglu nañ euh, takk mm-hmm. der bi après fu mujjee yooyu pour man tant que am day tax day am benn genre impunité boo xamante ne dara du la ci fekk mm-hmm. maa ko doon waxtu récemment ma kenn defu ko violence kenn exercer wu mm. benn service corporel dund ko ñëpp rafetlu ko mm. même si bien vrai que ci beneen côté bi ñaawlu nañ le fait ñu mel ni am benn trophée de guerre ñëpp di ko mm. filmer ñuy taxaw jàkkaarloo booy génnee di photo am benn kii boo xam ne te ñëpp dañ doon gis ne d' accord technologie moo avancé moo toll foofu noonu mais dañ doon gis ne da nga naan jékki-jékki ñu jàpp nañ ko mm-hmm. image sax doo ko gis tey jii bon ils me diront que ne technologie moo avancé ba yegg foofu mais ino tey jii néew na ñu amee image am mhm. pratiquement benn photo mu gis wala ñaar ngay gis mhm. mais jamono jooju téléphone bëreegul woon portable bëreegul woon mais eh, da nga daan gis tintamarre bi am ak bruit bi am nii léegi lépp lépp lépp lépp ñu tasaare ko si internet bi te man daal yaakaar naa ne côté boobu war nañ ci gën a mën a xoolaat ñoom seen biir mhm. ñu wàññi ñi nga xam ne dañ naan dañuy faatu ci prison yi tamit ñu bañ a topp effet buzz beeg yooyu noonu xam na mm. ñoom seen liggéey c'est plus sérieux que ça ni ko ni ko nit ñi yaakaare waaw c'est question de sécurité la mm-hmm. ñu gën a xool daal naka la def ba yenn yi nga xamante ne écart la ñu moytu ko mm-hmm. parce que je pense que commissaire Abdoulaye Ndiaye moom moo ko waxoon benn jour mm-hmm. mu ne dafa am ñoo xamante ne bu ñu juumee kenn du leen ko jéggal takk der bi si la bokk gis nga mën nay nekk di veille sécurité ci ci benn frontière pendant cinq ans benn fan mu def faay rek ñooñu dugg toj dëkk bi rek ñu daal koy jëlee yóbbu ko feneen mhm. dañuy fàtte cinq ans yi mu liggéey yëpp takk der mën na nekk ci koñ bi di ronde di liggéey ñëpp kenn du yëpp mu jàpp mhm. mais benn fan lay dóor benn agresseur mu dee rek mu am problème kon ñooñu seen juum kenn du leen ko jéggal mhm. loolu addina bi moo tëkkoo noonu comme kenn du leen jéggal seen juum dañu war a xool seen i mën a jóg euh, dam tamit daal ci àddu wax ci jël ay décision euh, ba nga xamante ni lu lu mel ni dootul am daanaka euh, bëri na fi sax yàgg na fi am waaye tamit mu yem fii ndax mi ngi bëgg a bëri te bu bëree dafay nekk ak tayif te tamit ki nga xamante ni moom moo di du Faye nga xamante ni tey moom lañu jàpp ni dafa pendre boppam foofu ca commissariat boobu ñu xool def autopsie xool bu baax a baax lan moo ko rey réellement dina am certainement dina am mais tamit ñu wax ñu li nga xamante ni moom moo am dëgg-dëgg ci mbir moom mi la mais tamit autorité waruñu toog tamit euh, croiser les bras war nañu jóg ci mbir mi bu fekkente ni tamit euh, euh, en tout cas li ci war ñu def ko ci. mais mooy ubbi enquête rek mooy ubbi enquête parce que lu lu lu yéeme la. Mm. commissariat ñu ne nit faatu na fa jàlloon na fi ak Elimane Touré commissariat bu port wax naa ko fi léegi. ba léegi déggoo ci bon bu amee man yëguma ko ay sanctions yoo xam ne teg nañ ko ci wàllu dañuy jàpp ba si biir ñu ne dafa dafa xaru. xam nga ki taxaw def enquête wala mën ne dafa xaru mënoo ci dara loolu jàpp ne dafa xaru rek mais ñoom bu fekkee dafa xaru même su fekkee dafa xaru tamit euh, ñoom ñoom fautif nañ ci benn côté parce que tamit euh, mhm. bu fekkee waaw fayir nañ ci mhm. peut bi bi ci war amu ba tax wala ko benn objet boo xam ne si mhm. nii tey moo tax moo bu ko amul woon tey mën na bañ a xaru loolu aussi dañ koy dañuy jàpp ne ñoom tamit côté boobu am na benn défense dañ ci am part de responsabilité bu mag parce que pour man commissariat nit nit ñàkk fa bakkanam mi ngi mel ni nga dem rëbës fekk benn chambre bu nganda ñoo nit ki dafa xaru wala ki dafa dafa dafa def naka su noonu foo xamante ne yaa ngi jàkkaarloo ñëpp nekkandoo ñëpp mhm. loolu boo fa am bu fa amee loo xamante ne ump na ñeneen dafay dafay jéggi daayoo surtout commissariat nga xamante ne ñu fay nekk du bëri yenn bëri mhm. dañ leen teg nii ñu toog dajaloo fa am na commissariat boo xam yoo xam ne boo fa demee sax da ngay da yàlla mm. tellement que fi ñu nekkee nii am na benn benn waaye activiste bu doon wax naan bu guddee day mel ni kaña ya kaña yéen a yéen dëkk mm. tellement que condition dafay doon mm. ay nit lañ am na ñoo xam ne dañ leen di yóbbu commissariat ñu def leen garde à duñ jaar sax ci mandat de après dañ leen di bàyyi ñu ñibbi seen kër mm-hmm, mm-hmm. ñooñu tey ji boo leen dundulowee yenn condition yoo xamante kon tey jii pour man war nañu gën a mën a xoolaat sax ci au delà de mm-hmm. yi mm-hmm. mu yoo xamante ne ku fa dugg dina diñ ci nit nit nit nit mm-hmm. nekk fa ci garde à vue rek ci lay bàyyi guddee kañe di la jaar fu nekk jinax yi di la di la son yooyu yaakaar naa ne war nañu mën xool naka la def ba bu ñu gannaaw ba ne ñi ngi def ay jéego ci prison yi parce que ne ñu ngi am coppite dëgg la ñi génn ci kaso yi le contraire la wax parce que dañuy jàpp ne ba léegi situation bi mi ngi exécrable travel foofu mais kon bu comme looloo ngi am. Hmm. ñu ngi def ay effort nañ jël effort yi wéyale ko tamit ba ci commissariat yi parce que fii ku dem si kon di déposer kayit mbaa ngay légaliser du kayit di gis ñoo xamante ne fa ñu taxaw ak nañ leen di parquer mm-hmm. nañu ni ñuy nekkee ñëpp mm-hmm. da xam ne ay nit kat war nañoo ko xool ba xam lan moo ci lan moo ko wundu ndax euh, daanaka fii Sénégal commissariat buy buy buy tëj moom amul fii ci mm-hmm. Sénégal daanaka boo demee 3 heures du matin di fekk kenn mu toog wala bu fekk di tey ñi ngi def ronde nekk sur le terrain donc loolu moom euh, donc euh, heure booy dox guddi di nga tasanteeg police mhm. xam ñeneen moom mais police moom heure booy dox ak lu mu guddi guddi di xam ne ñoom ñi ngi ci ñi ngi sur le terrain donc nag euh, loolu su fa amee dafay taxaw ñu dafay jot ñu taxaw laaj naka la demee ndax dafa xaru ndax leneen da ci am leneen da ci am te enquête yi incha allah su fekkee génn dinañ ci am lu leer ba tax na noonu la ñuy jugee foofu ci commissariat central daal di Sénélec eh, bu Kaolack boobile ñoom ñoo xëy ci suba tey doon amal ab euh, marche wala ab manifestation boo xam ne si nii kenn autorisé wu ko ba tax na jàmmaarloo nañ ak policiers yi eh, ya nekk foofu euh, kilifa li nga xam ne si ni moom moo bokk ci Y'en a marre eh, donc moom doon na participer également ci manifestation boobu ñu teg ko loxo ñu gis ko ci ay euh, vidéo presse bi yëpp daal nekk relayer nañ ko ñu daal di koy jàpp ñu koy jàpp nag na ni sax brutalité bi nga xamante ni tey force de l'ordre ko jëmee loxo bi dafa dafa déboîté donc dafa summeeku voilà donc mu mel ne image yoo xam ne si ni image yu yu ñaaw la ñu gisee ni ñu ko doon jàpp di ko dugal ci oto bi ak mhm. lacrymogène yi nga xam ne si ni doon nañ ko dóor ci euh, lieu bi donc mu nekk loo xam ne si nii daanaka euh, ni ñu koy gis sax image yi ñuy gis fii di seen léegi daanaka image yu yu ñu banaliser la mhm. ne lacrymogène manifestation moom nekkatul loo xam ne si ni mais ni ñu ko jàppee tey dafa dafa xaw a ñaaw mhm. brutal parce que mi ngi wax ak ñoom donc loolu message bu foor la donc mu war a dikkaat rek ci li ñu doon waxtaanee fan yële tamit que ni euh, civil yi ak policiers yi wala gendarmerie ay ay frères lañ mais duñ ay ennemis dafay dafay ñëwaat rek ñoo ci ci ci loolu mais tey nga ñëwaat ci arrestation euh, bu kilifa ñoom daanaka euh, liñ leen di arrêté bëri na de Moustapha. waaw bëri na activistes yi ñoom ah. ay jàmbaar lañ ñoo xamante ne vraiment. ñu mérité ñëpp di leen gàcce ngaalaamal rek mm. parce que man dama naan bokk nañ ci ñi nga xamante ne ñooñu dimbali si suñu réew bu ñu fi nekkuloon xamu fu ñu jëm mm-hmm. ko woon mm. doo doo nga daan am lu met ko wax rek buñ demee nag ba léegi boo amee lu metti ñoom dañuy ñëw dañuy ñëw dañuy jënd xeex ñoom activistes yi mm-hmm. dem dugaar xeexi ji xeexu jàmbur xeexu jàmbur wala dañuy jënd dañuy jël xeexu jàmbur comme nañ na def temps boo jaay ma sa xeex xeex bi mm. nga dem xeexi ji ko ñoom dañuy jël xeexu jàmbur mm-hmm. te xam nga du ñëpp ñoo mën a xeex Sénégal bi lu bëri ñoo xam ne dañuy xeex par procuration man damay am jafe-jafe ngay xeex ma ne marooma Mahfouz Mahfouz di xeexal ma nekk leen ci de yaa ngi ci de guerrier nga de mm-hmm. Mm-hmm. jàmbaar nekkal foofu rek te pourtant li ngay xeex mën nga koy xeexal parce que mm-hmm. xeex pour ñu wàññi courant bi da xeex pour ñu wàññi gasoil bi da ngay xeex pour ñu wàññi euh, ndox bi loolu lépp mën nga koy xeexal ak sama samay morom mhm. mais su ma la nga xeex ëllëg ma ñëw taxaw sa wet jàpp ci xeex dama naan déet grand maa ngi sa mhm. bi nice na dem naa sama loolu ma koy wax noonu man tamit ci laa war a bokk mhm. buñ ñëwee ci arrestation bi ñuy def fële kilifa ca Kaolack ñaari gis-gis laa ci am maxfus bu njëkk bi mooy euh, du yoon ñu leen di aaye ñu manifester boo gisee ni ñu leen doon dispersé ay une dizaine de personnes taxaw bariwuñu am na ñu leen metti ñu yor seen ay pancarte taxaw di ñaxtu mais yaa xayti encadré leen mm. marche bon encadré doo fa taal lacrymogène mm. gaz wàllu daw policier bi du ci sonn du ci daw ba xiixat du ci du ci naan ndox du ci sonn mm. dégg buñ taxawoon noonu duñ fa def plus de deux heures duñ fa def plus de deux heures naaj bi tàng ñu dem ñibbi dañuy dem ñibbi tànga métti fii Kaolack xam nañu ah. fa defee tout le temps Euh, def li ñuy wax li ñuy wax taxaw scandé seen slogan bu bu buñ noppee daal di roñu ndànk dem ñibbi. Mhm. mais imagine toi oto ñëw wëndeelu taxaw jàpp kii bu mënu xatal kii mhm. buux kii mu dugg ngeen dóor lacrymogène ñi daw taxaw di sànni ay xeer. Mhm. énergie boobu ngeen di déranger te pourtant mënoon na ñàkk. moo tax parfois dañuy dañuy dañuy def usage de force ba pour man dañ koy télé utiliser ba mu ëpp. bëgg nañ marché régime déclaration sax la ko Abdoulaye Wade yóbbu léegi da ngay yëg da ngay yëglu da ngay tere bi exception la war a doon mhm. mais tere bi warul doon règle mais su Macky Sall malheureusement dañoo constaté ne tere marche léegi règle la fi mhm. ñu marche ñu autorisé bu mag di ko mhm. di ko partage sociaux pour nit ñi mën pour xamaleen sama marché bi que léegi autorisé nañ ko mais ban dëkk lañ toll marché buñ tere kay moo waroon doon exception ba nga xamante ne daf lay jaaxal mais buñ autorisé sa marché léegi yow sax da tëb nga nga nga nga nga ne heureusement autorisé nañ ko parce que da nga doon xalaat ñu tere ko kon loolu pour man mbir la boo xamante ne war nañ ci amal benn taxaw seetlu daal ñuy bëri na ay marche ñuy tere di si def ay arrestation di teg ay loxo di di brutaliser ay doomu jàmbur pourquoi parce que jaru ko woon sax en réalité boo mhm. xoolee ba ci biir parce que kii marche yàqalu la dara li ñu gis yëpp ak li ñu fekkee yëpp manifestation ñu autorisé amul benn bu ci dégénéré mhm. boo waxee dañ naan ay problème infiltration la ñuy xalaat itinéraire bi lii ak lëleeg wax ñu ban moo fi dégénéré amul

moom beneen mbir tamit beneen point moo doon wax ci arrestation bi j'ai pas du tout apprécié comportement kilifa ci biir arrestation bi mm-hmm. parce man ko dégg mu naan kon seen ay frères lañu. nous sommes vos frères seen ay frères lañu. Mm-hmm. mais am na façon bu doon wax la manière. Mm. si la bokk. Mm. force de l'ordre am na yoo mm-hmm. mm. doon ñëwee c'est important li nga noonu. am na mm-hmm. chef bon ça ñun lii ak lii indi. Mm-hmm. lii ak am na benn exemple bu ñu fi je pense c'était Patar xaw ma étudiant yooyu noonu doon doon doon manifester. bi ñu faatee étudiant la defe na Fallou Sène Fallu Fallu Fay biñ ko biñ ko biñ ko faatee mm. Euh, nga gis booy di ñaxtu mu ñëw ba seen biir je pense que tout récemment am na promotion parce que moom moo nekk léegi section de recherche j'ai oublié son nom mu ñëw ba ci biir euh, booy étudiant yi taxaw di wax ñoom lii bu ngeen ko defee di leen baab di leen ñoom di wax ba booy renoncé daal dem mm-hmm. mm-hmm. mais genre image yooyu la ñoom envie di gis yooyu ngay comprendre ne nii ñi ngi am na benn collaboration bi am entre euh, civil bi mm-hmm. ak homme de tenue bi mais tey jii loolu buñ la fa fekkee ñoom xanaa du ñu dóor ay lacrymogène buñ ñëwee ki jiite di ñëw taxaw ne leen s'il vous plaît avancé leen ngeen dem wala dañuy tere rassemblement dispersé leen mhm. ngeen taxaw ngeen échanger ak ñoom mais échange bi dafa am ñooy waxeek moom moom tamit mu am nooy waxeek yow mhm. mais fii ci ñaari côté yëpp laay wax parfois nga ay takk der yoo xam ni ñuy waxee ak chauffeur yi da si yàlla mhm. te pourtant loolu du yoon moom tenue bi mu sol dàll bi mu sol yow li ngay fay moom lañ koy fayee noonu moom ci ci ci bu bu askanu doon woon fay ay lempo mhm, amaana dina am problème salaire mhm. kon il faut ku nekk moroomam ki nekk ci terrain bi ak homme de tenue bi ñoom ñaa ñëpp mu am ci mais tey jii li ñu gis ni di waxal di ko joxaar bi yooyu man du loolu waroon na mën a mu wax ak moom peut-être dina am lu mu mën na am sax gain de cause ci lu mu soxla parce que mm-hmm. kilifa kenn dootu ko laajte si kër gi si dëkk bi mm-hmm. boo ko séenee di xam ne kële kilifa la mm-hmm. te nit ñi xam nañ ne am na ñoo xamante seen image na ñuy filmer image boobu après yóbbu foo xamante ne musiba lay doon ci yow moo tax ñoom tamit lépp lu ñu def il faut que ñu koy xoolaat di ko calculer di bañ dem ci excès parce que excès baaxul. Mhm. loolu moom il faut ñu équilibrer. Mhm. mais tamit euh, su ma la déggee dafay mel ni que ni euh, ñoom ñi nga xamante euh, si ñoom a réprimer wala tere moom su fekkante ni marche non autorisée la donc li def ñoom ay li nga xamante ni moom mooy ay ordre la jot. mais ay ordre la jot mais xam nga. mooy mooy waxtaan bi nga xamante ni war na am rek. ci diggante bi mhm. parce que ñoom war nañ xam ne ñii tamit dañu am loo xam ne si dañ ko war liggéey bu ñuy waaye eh, yaakaar naan su fekkante ni ñoom dañu tase si terrain bi war nañu a waxtaan eh, tey ba ku nekk eh, ba ku nekk dégg sa morom mhm. man loo loolu laay wax xam nga bu ñuy jiite souvent damay faral di wax ne ñoom dañuy préférer souvent di communiquer par par par les grenades mhm. yooyu la ñuy préférer di communiquer wala par des arrestations pour man affaire bi du foofu quoi pour man daal war nañ gën a mën a xool ay efforts yoo xamante ne mhm. buñ ko defee dinañ mën a déggoo ak ñi nga xam ñoom la ñu fekk ci terrain bi mais pas pour nga ñëw taxaw sëñ bi dégagé wala def nii def nii ñooñu bañ ngeen commencé aja def signe ñu commencé leen joor bombe lacrymogène yi yooyu war nañ koo mën a dépassé mm-hmm. da ngay xool yenn image parfois ngay seetaan ay France 24 wala yenn dëkk yi nga gis ñi manifesté dëgg la dina dina am ay ay mm-hmm. comme ni mu amee fépp mm-hmm. parce que dëkk yooyu sax da ngay parfois mu am ñoom ni police bi dañ leen di réprimer ñii ñii ñii seen ay nit lan lañ tellement waaw dañ leen di comme jàpp ci oto nii di buux di ko force di dugal fii nga koy gisee ñoom dañuy def maintien de a yegg foofu ak mm-hmm. sunu takk der mm-hmm. mu am benn respect boo xamante dafay am ci diggante ñun ak ñoom xam nga amoon na benn jour ñu annoncé fu woon benn match bu doon am ci diggante frappe ak ay ak mm-hmm. waaw ñu mujjee ko annulé man bi ma déggee initiative bi dama kontaan parce que dama ne comme frappe bokk nañ ci ñi nga xam ne ñooy client yu ëpp ci takk der parce que li leen di dafa bëri waaw miin nañ kaso min nañ kaso mm-hmm. ñooñu tey ji bu ñu demee ba déggoo te li ngeen jàppee lépp la mooy marche mm-hmm. manifestation non autorisée manifestation bu ñu demee tey ji amaana bu ñu amee marche ñu waxtaan policier xamal leen ñun dañuy liggéey mm-hmm. yéen yéen ngi seen mission peut waaye tamit xam leen lii ak lii ngeen war lii leen yoon mayu leen ko su ko defee bu ñuy échanger di communiquer frappe mën na am benn moment kat mu am nu muy xoolee policier yi ba bu ñu nekk bul marché mu ma kon xam nga pour man benn façon la boo xamante ne daal. Hmm. war na waroon na mën a dimbali ñu gën a defar diggante yi. Hmm. parce que diggante policier bi ak diggante civil bi warul mën a doon warul ñu mën a xoolante en chien de faïence. Hmm. warul mën a nekk. ku nekk war na mën a xool rek nooy jàppale sa morom contribuer parce que civil bi dafay soxla policier bi. policier bi dafay soxla civil parfois tamit. ku nekk da soxla sa morom. kon tey jii war nañu mën a xoolaat ba nekkin wi doon relation bu am dimbalante. Mhm. en tout cas am euh, dafay am solo ñu koy ñu koy rappeler toujours que ni euh, force de l'ordre yi ak euh, ban ba muy société civile wala ak lu ci mënti doon muy société bi de manière générale ay ay ay ay ay ay mhm. ay ay ay sœurs lañ donc parce que ñoom suñu sumee seen tenue dañuy ñëw ci kër yi la ñuy ñëw dëkk ñu fi ñoom ci biir kër yi lañu ci biir kër yi la ñu dëkk waaw ci biir kër yi la ñu dëkk ku ci amul benn frère boo xam ne si di takk der la am nga peut-être que benn tonton wala benn wax mbokk boo xam ne si ni tey Eh, mi ngi ci corporation boobu mais tamit mm. niñ jàpp ne rek ñu ay ennemis comme ni ko kii di fa waxee ci vidéo bi mais eh, on est des donc ñu bañ a tamit di xoolante yu yenn bët yi di di bay indi yenn yoo xam ne si nii tey après dañ koy am ay images yu ñuy regretter la donc comme yu mel ne comme yi ñu gis tey ñu ci ñu ci bàyyi xel maa ngi lay bàyyi Moustapha nga tàggatoo tey dafa mel da leer nag tey moom <laughs> ni nga daan ñëwee bokkul ak ni ak ni nga daan ñëwee fan tey tey tey da tey tey dañu laa defal make de changé nga def xam naa ni gars yi remarqué nañ ko sax ci image yi ah dañoo am dañoo dañoo am benn coiffeuse coiffeuse boo xam ne si nii bu bees maquilleuse maquilleuse di maquilleuse di moins voilà maquilleuse. waaw mais moo fi jaaroon tey ah je sais pas comment comment il encore. defar defar na la defar na la moo fi defar na la defar la tamit ñu koy ñu koy remercier. Mhm. bu baax ci disponibilité bi ak collaboration bi. Mhm. di remercier ñëpp ñi nga xam ne rek dañuy ànd ak ñun.

Euh, di ko jaajëfal bu baax baax ci liggéey bu mm-hmm. am solo bi nga xamante mi ngi ko liggéey parce que ne plateau bi il faut ñu relever ko relever euh, mm-hmm. mm-hmm. que ni affaire deux ans benn émission buy am bu am presque plus d'un an. Mhm. du lundi au samedi. Mhm. benn la Sénégal muy le point de la rédaction. Ah, fii Sénégal 24 yëpp jeudi la yem wala vendredi. ñun dañuy dem ba samedi. di la jaajëfal bu baax a baax di li Libaas moo nekkoon ci wàllum caméra bi di leen jaajëfal yéen aussi eh, ñi nga xamante ni yéen a ñuy topp tous les jours fii ci Sunugal 24 ci le point rawatina ci le point de la rédaction di leen wax rek ngeen wéy eh, di abonné ci suñu chaîne eh, YouTube Sunugal na ngeen activer la cloche de di am les vidéos en temps réel ngeen di aimer les aussi donc di leen jox dig daje.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 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñee góor ngóoraa tax